mu doon wax mbokk mi ne dem leen doxi seen soxla yi man jàmbaar la bu xam àll dem ànd ak rabi àll yi nag moom ma gënoon sax jikko waaye nag man maa man rabi àll yi foofu waaye continue nag di wax njàmbaaram ak mën a muñam ndax doomu aadama mën a muñ ak doon jàmbaar ak doylu daf cee baax ndax dana tax kenn du la yeb moo tax dëgg doyloom gi ak njàmbaaram gi luñ ko war a roy la bañkat la woon daal moom nangu woon toroxtaane udimu danaa saxal ma taalal juuñ yàgg xiif xatta umituhu ba rey ko waadribu danaa dóor anu ci moom a zikra fàttaliku safaan ak wàll fa azharu ma daal di ko may ma soxloo leneen waris ko léegi-léegi damay xiifa xiifa xiif barey xiif gi xam nga xiif sax bu yàggee dafay mujj dee nit dana xiif waaye bu lekkut dana dem ba mujj xiifatut nit dana mar bañ a naan ba mar ma dem mu ne man loolu li mu koy def bari na léeg ma xiif ba xiif ga daal di dee du ma ko fàttaliku sax dama koy dummóoyu mel ni xiif ma damay xiif du mooy ko mel ni xiif ma ba xiif ga dee loolu lépp ngir bañ ku ma yem nag nekku ne dama amut nu ma def ba am nu ma lekk déedéet su ma neexoon lekk yi gën a neex laay laay waaye nag du ma dugg ci lu ñaaw te bañ naa ku ma yeb moo tax may xiif ba loolu di ma dal kon moom doon moom bandi boo xam ne dinaa koy tiiroon waastafu danaa mëkk ñene danaa ŋàmpu turbal ardi pëndëb suuf si mooy suuf su nooy si kay laa yaraa ngir bu mu gis imri un ascam mutatawilun bu aji ñaax lahu mu di ko ñeel alaya sama kaw mën a tawli ci xewal mu ne mëq suuf moo ma gënal nit di ma defal dara naan ma sul woon man maa la defal nangam bañ ku ne su defal nangam su dul woon man moo tax léegi-léegi may maq suuf si ngir bu ma kenn yépp ndax nit bu la defarul dara mun laa yeb dégg nga waaye olof dafay wax ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa kert moom nag loolu lay bañ bëggul kenn ëmbal ko sànqalam maanaam bëggul kenn ne ko budul woon man ki ko ñaax muy maq suuf si bañkat la woon nga ne ko waaw yow xaar nga amul loo amul kàttan ba mën a lijjanti loo lekk mu ne déedéet wala la tinaabu zaami su du woon teet ayib wala ak ŋàññi lam yul fa duñ fekk mashrabun benn naanuwaay wa makalun ak benn lekkuwaay yu haashu danañ dundee bii ci moom illaa la day yelu mooy mu fa mën mu ne su may xiif bay lekk suuf ngir bañ ku ma yeb su caageen ne dama mënul lijjanti ba xam dara mën naa lijjanti waaye lu bon laa bañ def su dul woonu bañ a yàq sama der bi moytu luy ñaawal sama der duñ gis lenn luy nit di naan naan gu neex lu may man ko am duñ gis lekk gu neex gu nit di lekk lu may man ko am waaye man du ma dugg ci luy tiri ma sama der kon mënoon naa def pexe ba am waaye pexe moomu baaxut looloo waral defu ko bëggu tirimal deram moom daal ab jàmbaar la daal waaye nag du trian kat ndeysaan dégg nga bayt bi it lisaanu ku nekk war na koo di wax ci rawatina ci jamano ji ndax jamono ji boo bañut yàq der naanu waaye ak lekk waaye gu neex gu ne mën nga ndax yu bon yang fi dafa la naanu waaye yu nekk ak lekk waaye yu neex yi waaye nag fala musiba yu mag yi ak meroog sa borom nekk ci àddina ak laaxira mu ne walaakin nafsan waaye bakkan xurratan bay gor laa tuqiimu du sax bii ak man ana daymi ci toroxtaane illaa raysa ma taxawalu lu mooy diir ba dana ma jàllar biku waaye sama bakkan bi bakkanab gor la nangu toroxtaane bu bu na lu nga diirab loo xam ne danaa ko wan gannaaw man toroxtaane wan ko gannaaw rek laa ci kon moom mu ne bakkanab gor la du dugg ci lu toroxal waatu yi danaa lem alal xamti ci xiif alxawaaya butit yi kaman tawat kom num lemoo xuyuutatu maariyin wañi kënt ga kënt karaw la woon bu ñu naan defar ay wëñ wala nga ne xuyuutata maariyin wañu maari ñu maari benn waaye doon bu doon raw ay yére buy ñëw daal tuxaaru danañ ko raw wa tuftalu ñu di ko baram baram moo ñu dégg nga jël wëñ gi raw raw ko nee na sama biir bi dama koy lem ci xiif xiif lool dégg nga ba sama butit yi dafay mel ni mën nga ko jël di ko raw comme ni nga rawee wëñ kooku ni ngay rawee wuñu maar yi dafa mel ni rek mën nga koo rawee sama biir bi maar yi suuf la suuf mooy këraw rek ni ñuy rawee bëñëg maar yi noonu la rawee sama sama biir bi noonu lay rawoo waaw noonu lay rawoo daqiif wala nga ne maar ni muy rawee buumam yooyu noonu lay sama biir bi noonu lay butit yi di rawoo suma biir ngir xiif kon moom ku ñeme xiif ku yàgg xiif la mu ne waax du danaa xëy alal xuuti ca dund ba azahiri bi aji néew kama xadaa num xëyee azallu tillugay sew ay pooj taxa daahu sànni wante naag moom ak tanaifu àll ya at xalu tillugu xóon xóon mooy mu yore couleur doomu taal xaw a ñuul mu ne damay xëy am dara du gu néew laay am mel ni tilli googu nga xam ne pooj yi pooj yi ci boppam dafa sew xàll bu ne daanu na fa mhm. ngir wut lum lekk amul dara tilli ga boo ko xoolee nag ma nga yore couleur doomu taal dem bay xaw a ñuul tilli googu pooje sew muy dugg ci xàll bu ne xàll yi di ko sànni wante mu xóon amul lum lekk man it léeg-léegi damay xëy du ma am dara comme ci lu boobu wala la am dafay néew lool waaye nag du tax ma dugg ci lu ma warul dugg gis nga ko de mm-hmm. ku xamoon ma ngay wax nag mbiru tilli ba ak ni tilli gi sonnee mm-hmm. mu moom it noonu la daan rek vraiment la waaxu ba mu ko jëfee maanaam ba mu ko ba mu yéexee alxóotu dund ba min haysu amahu fa mu mën a jublu daa woon moom till ga fa jaabatu mu wuyu ko nazairu ay ndend mhm. nu xalu yelaway sew till la goo xam ne dafa xëy fu dund ba sonn mu yéex koo xam la waaw mooy yéex na am fu mu jublu rek du mën a am dund mu daal di sab ba mu sawee yeneen moromi till yu sew amuñ dara ñoom lekk daal di ko wuyu si ñu nga till yi ci àll yi bu ñu xiifee sab bu benn sabee yeneen sab xadaa xëy na moom till googu mhm. taaw yéen daa ji lem biiram maanaam daa ji xiif mhm. yu aaridu ma ngay ndagganteeg ak riix la xaa gaaw mhm. wala yu aaridu ma ngay gaarluwanteeg maanaam ma ngay dëddu ak riix ngelaw la xaa gaaw yaxuusu ma ngay for bi aznaabi siaabi ci cati xuur ya wa yaasilu ma ngay cal di daw til la goo xam ne bu xëyee dafay lem biir ba ndax xiif fu ngelaw li jaar mu jaar safaan ba loolu mooy gaar luwante bu ngelaw li jaaree penk mu jaar xarfu ndax nee nañ ci day gën a mën a xentu xetu rab bi muy rëbb wala nga ne ma ngay ndagga ndagganteeg la di daw bu baax ngir mën a jot rëbb wa xaafiyan daa gaaw nekk ci cet xur yi di for lu mu lekk tey cel di daw rekk ci lu googu tumuraanke ci àll ba di wut lu mu lekk ni mel rekk man noonu laa mel waaye damay muñ kon gor war naa xiif waaye bum lekk ca du nàmp lu tax mu nàmp ay weenam ñàkk waru tax ñànke moom loolu la jàngale fi mu till guñ yoxamal ak bindam gu doye di bind siibul wujuhi till yu ñuul kanam ka annaha dafa mel ni till yooyu xidaaxun bantu fett la bi ka fay yaasirin bu nekk si ñaari tinq aji karta mhm. te taqalqalu ba nga yëngatu wala te taqalqalu mu nga yëngatu bi ka fay yaasirin ci ñaari tënk aji kar till la goo xam ne bind mi bind bu doyee dara bu yoxam karaw gi kanam gi weex mel ni dafa bay jaaw ma nga sew a sew ba mel ni bant fett boo xam ne nii dafa nekk ci loxo kuy carte di yëngatu ni bant boobu sewee moom la noonu la till yi sewee till googu ni sonnee loolu rek laa sonnee waaye teewul nag damay ànd ak sama ngor mm-hmm. awil xas femu wala dafa mel ni mbooloom yemmu mm. yemmu lam bu mooy génne lem almabuusu ba da bañ yebal xas-xasa yëngal na dabrahu mbooloom wa mhm. maxaabiidu ay banti nemmi lem arsaahun na samp saa min aji yëkkatiku mu assili aji nemmi lem awil xasra mu laa bëgg mu ne tilli ga tilli ye mel ñu mel ni mboolam yam mu mu dajaloo mhm. nemmkatu lem bi ñëw rek yëg rek jël bant bi muy nemeelam dugal yam mu yi tasaaroo dinaaw ti lii noonu lañ tasaaroyee ci àll bi di wut luñ lekk amuñ dara ni tilli yooyu sonnee rek noonu laa sonne muharratatun tilli wuy aji yaatu gémmeñ la yu yaatu gémmeñ lañ foofu nu rëy gémmeñ كان شدوقها رف من سن نعم شقوق العسي قتاكو أي حدلا كالحات تليك كنم لن وبصلوا أي جنبار لن سن كرم يانا yaatu dal di rëy ngaam yee nam xottee ko dafa mel ne xet wuñ xar kanam yi ñëkk ñàng lool ñu ay jàmbaar ñoom till yooyu fa dëjja till ga daal di wa dajjat yeneen till yi daal di coow bil baraaxi ca nend ga nga xam ne foo toll yaa ngi dégg seen kaddu ka annaha dafa mel ni googu till yooyu wa iyaahu ak till gu googu xooleen nuuxun way dajjatu lañ ay mhm. jigéen ñuy dajjatu lañ dajjatu mooy di yuuxu rek fawqa aliyaa ci ron tund ci kaw tund sukkalu jigéen ñu yaradal la mhm. yaradal mooy ñu ñàkk doom mu ne till ga ba yeneen till yi wër ba sonn amuñ luñ lekk dafa yuuxu sab hmm. tilli xaw ko kenneen dala foo toll yaa ngi dégg seen kàddu mu mel ni till googu ak moromam ya ay jigéen lañ yoo xam ne dañoo ñàkk seeni doom yëg ci kaw tund di yuuxu ni ngay déggee seen kàddu noonu la tilli yi doon sabee kàddu yu foor hmm. sonn nañ lool amuñ luñ lekk man noonu laa sonne waaye nag du tax mukk ma dugg ci li mu war a dugg ndax sama bakkan bi bakkanu gor la hmm. yaa ngi gis de yii jikko yi kawe jikko yi jikko yi kawe la waaw boobu wax war naa mën a sonn waaye warul mën dugg ci lu koy lu koy ayibal wax daa mu jëllale moom tilli ga mu lamsal maanaam mu jëllale wax dat yeneen tillee lamsal ñu jëllale ñoom watta saa tam roy watta sa tañ roy bii ci moom watta sa tam roy bii ci tiligoogu maraamiru way ñàkk azaha yooyu moom dëgëral na leen murmiru tillu gi aji ñàkk wa azarhu ñoom it ñu dëgëral ko mu ne tilli gi dem parce que dama commencé jëlale xiif ga di jéem a muñ yeneen tille yi ñoom it commencé noppi mu leen ci xiif ak sonn ñoom tilli yu ñàkk yi roy ko moom mu dëgëral leen ñoom ñu dëgëral ko ndax kenn ku nekk boo xoolee sa morom da nga mën a muñ loolu tax mu ne watta saa tam roy moom till gu mag ci yeneen tilli ya watta sa tam mbooloom tilli ma watta sa tam roy bii ci tilli googu noonu maraamiru mbooloom tilli yu ñàkk azaha dëgëral na mbooloom tilli yooyu murmirun aji ñàkk mooy moom tilli ga wa azat hu ñoom it mbooloom tilli mi ñu dëgëral ko su ko defee tilli yaa ngoogu léeg-léeg ñu jooy léeg-léeg ñu muñ léeg-léeg ñu jaaxle léeg ñu wakkilu ci yàlla rek mani ni noonu laa fi waaye nag sama bakkan bi bakkanam gor la du dugg ci lu koy toroxal ba mu nga de wala bëgg a jàngal muñ léegi nag dund bi soppeeku na soppeeku ba nit ñi mënatuñoo muñ ci dara waaye bu njëkk nii la jàmbaar yi doon mel taarix fàttewut ko ba ga waaye gis nga du ci alal ju bëri la ko taarix ñàkk fàtte chaka tawat na moom till googu wa chakat yeneen tillee tawat moom la till topp lu mu def ñu def ko su topp mu jàjju baax du gannaaw ga war awat ñu jàjju ñoom yeneen tillee dafa commencé tawat till ga yeneen yi tawat gannaaw ga mu muñ rek jàjju bàyyi tawat yi yeneen tilliya ñoom muñ roy ci moom mu ne wala sabru muñ in lam yanfaxi bu jëriñul achek wu tawat ajmadu moo gën a rafet mm-hmm. boo demee ba tawat mënul dara waaye muñu fasal see ngaa muñ wa faa dellu na moom tilli googu wa faa at ñu dellu ñoom tilliya baadiratin di way gaaw wa kulluha kenn ku nekk ci ñoom ala naka zin mu ngi ci tiis maanaam xiif mimma ci tiis woo xam ne yu kaati mu dana nëbbanteeg moom mucc mi lu aji rafetal muñ tilli ga daal di dellu yeneen tillee daal di dellu ñu gaaw lool xamuñ luñ lekk ñoom ñëpp ñu xiif xiif goo xam ne ku mën a muñ dëgg moo ko mën a nëbb xiif nañ xiif goo xam ne muñkat dëgg moo ko mën a nëbb man it loolu daf may dal waaye damay nëbb sama xiif te du tax mukk ma caalik ba dugg ci li ma war a dugg jikkoy gor yi dafa war a dellu ci société bi ñu mel ni nga xam ne boo sonnoon bay bëgg a dee it du tax mukk nga dugg ci li nga war a dugg lépp looy am rek looy fekk nga am ko ci am goo xam ne naqari wut yàlla te du yàq sa der ñii bañ kër la ñoon nii lañ meloon moo tax luñ jiitawaan mu baax te ñàkk lu tax kenn yeb leen mu continué di wane jàmbaaram génn na ci tilliya ni tilliya sonne daal noonu la sonne waaye mu ngay continué di wane jàmbaaram moom seen fara ne wa tashrabu dana naan asaari samay ndesit alqata alqata përëntaan piccam përëntaan xeetu picc la bu xam al wax nañ ne fu mu jaar fu mbaggee jaar buy dem buy ñëw fay jaaraat alkudru yooyu way xóon mooy du dem ba xaw a ñuul baadama sarat gannaaw naa mu rañaanee xaraban di aji sàkku ndox axshaaha ay biiram te tasalsalu ma nga yëngatu piccam përëntaan lu muy xam-xam àll ak lu mën a mën a naaw gaaw bu maree ba biir bi yëngatu muy sàkku ndox buy ndagg wante ak man maa koy jiitu danaa naan ba desal mu door ñëw naan wane ku gaaw la wax na dëgg ku gaawoon la nag moom ku mënoon a daw moom seen fara da doon ndagganteeg gawar ku mënoon a daw la bu xëlee xëyee rek balaa yàgg mu yegg fa jëm moo tax muy tagg boppam ci mën a daw ne gis nga piccam printaan mi ngay yéem nii ci mën a naaw ak xam xàll maa ko gën a gaaw maa ko gën a xam xàll bu maroon ba biir bay yëngatu mu bëgg a naani ca ab barab man mu bëgg a naani danaa dem ba naan ba tourné mu door ñëw naan sama ndesi mu commencé nag di wax ne diggante ma picc mi ne xamamtu yittewoo naa ndox ma wa hammat mu yittewoo ko wabtadar naa ñu njëkkalante wa asdalal mu naaw ba yor mbaggam wa shammara mu wowu min nii ci man faaritun xir wi aji jiitu mutamahilu bi aji def nànk dama bëgg naa ni piccam përëntaani bëgg naa ni ñu ne aywa nañ njëkkalante xool ki gën a gaaw picc ma naaw na ba sonn ba mbaggee yooru man nag sama tànk bi dama ko wog rek di xel nànk wàññi sama xel bi ko jiitu nànk laay daw ma jiitu ko moom dawoon naaw na ba yor mbagg it te man nànk daw ku gaaw la xoon fa wallaytuma tourné an xaa ca ndox ma wala boog an xaa wala picc yooyu waaye te ñoom takk bu ña ngay këpp lionqur yi ca dew nay ndox ma maanaam tefes ba yu baashiru dana junganteeg moom min xaa ci përëntaan yooyu zuquunun ay daaju sikkiñ waxaw salu ak rokk rokk mooy gamm boobu di nekk ci biir picc nga xam ne fa lay denc ñam yi balaa mu koy dugal ci biir bi dégg nga mu ne dem naa naan turne mm, wan gannaaw picc ya ñoom ñuy a daanu ci tefesu ndox ba difa teg seen sikkiñ ya ak seen rokk ya mm-hmm. maa gën a gaaw picc kan waxaa dafa mel ni cool picc ya mhm. xujara ci ñaari wàlli ndox yi wa xawlahu la wër ndox ma adaamiimu ay mbooloo lañ nuzzalu yi daway wàcc min safril qabaa'il jugee ci tukkikati kuréel yi picc ya bañ daanoo ci ndox ma nañuy sabee ka coow ci la war ndox ma ak ñaari wàlli ndox mi dafa mel ni ay mbooloo tukkikat yu wàcc ci barab ni ñuy cooyee noonu la picc doon cooyee tawaa fay na dikk nañ min chattan ci barab yu tàqalikoo ilayhi jëm ci ndox moomu fa dammaha mu tappe leen kama damm comme num tappe azwaaj al asaari mi feggi mbooloom gërëm ya mën halu naan waay mel ni mbooloom tukkikat rek yu jugee ci barab yu tàqalikoo wala picc yi ñoo jugee ci barab yu tàqalikoo ñëw dajaloo ci ndox moomu ndox mi dajale leen comme ni nga xamee ne euh, ay mbooloom gërëm dañuy dajaloo ci benn naan waaye di naan aswaat jëmu zawdu mooy ñetti gërëm jëm fukk dégg nga asaarim mooy mbooloom gërëm mbooloom gërëm mu dajee daal di naan ni ñuy tàppikoo ci naanukaay ba ñoom it noonu lañ tàppikoo ci naanukaay boobu fa abbat ñu daal di góox xasaashan ci yàkkamti su ma marat topp ñu romb ka annaha dafa mel ni ñoom maa suub yi ànd suba ga rakbun gawar lañ mu bi aji gaaw min oxaazata yu jugee oxaaza picc yi bañ demee ñu ngi commencé guux guux gu gaaw su paree nag ñu daal di naaw dem nañu naawee suba gi ak nañ xàndee dana yaakaar ne am mbooloo mu jugee oxaazatu la di di di dem noonu la picc yi àndee picc yooyu maa leen gën a gaaw dafa bëggoon wax moom jàmbaar ku mën daw la mën daw gi dëgg loolu wa alafu danaa tàppe wajal ardi jëmmi suuf si indeftiraachiha ci jamonoog tàllaloom bi ahda ci gannaaw gu dal tun biihi dana ko yëkkati sanaasinu ay yax ku xalu dëgër te mu ne man bu guddi jotee tëdd si suuf si nii doy na ma lan rek tëdd ab suuf doy na ma bu guddi jotee ci suuf si laay tëdd suuf su tàll soosu moom laay def sama lal tëdd nag jaaxaan sama gannaaw gi gannaaw gu dal la moom laay tëddee waa yaxi gannaaw yu sew ya ñoo yëkkati gannaaw gi bu tëddee rek yax yi ñooy tegu ci suuf gannaaw gi daal di yëkkati ko te bëggoon a yaxam yi yax yu sew la te dëgër sanaa sinu mooy yaxi gannaaw jamoo seen noonu noonu la noonu la jàmbaarloo noonu la doyloo doylu boo ko defee rek amaalal mhm. waaye ñun ñu sonal mooy ñàkk doylu lii la san fara wax moo tax nit ñi war nañ ko roy ci lii waa dilu dara ma nga gën a yoo man xuudal yàpp wu sew kàn na fusuusahu noonu la dafa mel ni ay cëram fusuus mooy fi ñaaree xi dajale dajaloo ci cër yi xam nga cër bu nekk ñu am ñaari xel dafa mel ni ay cëram ki aabun bantu fett la daxaaha lal na ko laaibun aji fo faje moom mu salu luñ samp la mu ne su may tëdd sama ngéega li may ngéega mooy sama cër bu sew bi yàpp bu sew bi moom laa ngéega naayoo boo xoolee samay cër dafa mel ni bantu fett gu ndaw googu boo xam ne fettkat daf koo samp noonu di ko ni bant fet ba sewee noonu la suma cër yi sewee fayn bu jàqee bu amee tiis chanfara ci chanfara ummu xastalin yaayu pënd te moo di guerre la max tabatat lam kontaan la tabatat lam ñeewu bi chanfara ci chanfara xablu bu njëkk atwal u moo gën a gudd mu ne bu fekkee de maa ngi ànd ak rabi àll yi dematuma ci guerre yi dematuma ci xare yi ba guerre yi commencé di am tiis ci ñàkk teew gi ma ñàkk teew ah yàgg naa teew ci guerre yi di kontaan loo xare ba kontaan loo gu jéggi dayoo tey daal su guerre gi su ma guerre yi tawatee ne seen fara daal ñëwatut nañ xam ne yàgg nañoo kontaan ci man waaw la kontaan loolu nit ñi ci guerre bi moo ëpp la ma leen tiitloo ci ñàkk teew loolu bëgg wax ne moom lii mu ànd ak rëbb yàlla yi tekku ne dafa ragal waaye jàmbaar la boo xam ne yàgg naa teew ci xare yi ñëpp di kontaan kon tey bu defar it nañ fàttaliku démbam in uridu islam astata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu alaykum wa rahmatullahi